lañ la sant loo wax ñu tëj la man nag pël laa man nag marchand ambulant laa woon yàlla teral ma ma toog ci bitik lu ma waxee ban may tëj yow yow yow ak ah, rap rap tëj daqara buusi naa rap rap tëj loo jël 10 000 suba ñu tëj ma ah ma war a jëndi greffage ñëw écarté jaay ñu tëj ma moom ma fekk korité bi ci prison bi moo nekk nii commissaire nee na nooy jaayee ma naan ko damay nekk di wax mu ne waxaatal ma wax li ma waxoon mu ne ma génnal mu ne ma soonee dama ne ñu tëj la laa ilaaha illallah xale xamul yat ah xale xamul police waaye xam na yat policier bi nee na ma wax rek ñu tëj ma man bu am. balance mi ngi nii. teel léegi bu leen jënd rek ah, ba mu mi ngi nii chéri mi ngi nii gaaw boo gaaw keneen da koy mi ngi ko. yéyé rap rap tëj. police lenn na xamal naa leen ko. ku génn ne moo porte plainte day duul maa leen ko wax dañuy duul kenn porté wu ma plainte moo woote loi bi ci kaw ay kilifa ñoo woote téléphone ñu ne xanaa gisoo leen xale yi lu bon li ñuy wax loi moo woote du du kenn de xale yi garaaw ngeen naa attan ngeen a génn naan maa ko yóbbu maa ko tëj tëj ah kon tëj yomb yàlla moo tax tey yedd naa sama bopp de tey ma taxawee ci sama seetu bi damaa sangu ba pare woo dos sama sargal rek taxaw ci taxaw ci taxaw. daal di taxaw ci seetu bi daal di yedd sa bopp fu làmp yi moom laa lay nga jël ko def ko place bi. nga place bi lu war a ko chaque jour dama la koy waaw boo ko jëndee compte nga ko mën a def. yaa ngi dégg ma yeddaat sama bopp nag xaaral ma tekki veer yi ma yeddaat sama bopp nag daan ne man maam jaay sa bopp lu ma jaay xale yi jënd ko lu may xulloo mbaa lu may histoire mais indi national bi moom xale yi moom la ñuy bañ a dégg loolu moom dañ koy dégg moom lool moom policiers yi sax dañ ma kaa may ne ma waxal ma ne ma lan lan lan la xale yi di bañ ma ne leen ma ne leen du ma emprunté jeeg duma ma costaud samay maas ñu ne ma loolu may nañ la pour nga wax ko ñu ne ma booy direct da ngay toog correctement ba pare nee nañ direct bi naay wax léegi nànk di def léegi nànk léegi dara amatul ci réew mi nee nañ léegi direct nànk wax nànk xuloo amatul rayante amul dóorante jaasi amul dem procureur amul déedéet waaw yaa ngi fan jox na numéro GPA. waaw waaye jiw yi am na ba tey mais promo bi jeex na chéri promo jeex. na chéri. ay ful. léegi nag sant nañ leen di leen gërëm ñu daal di libéré ñu daal di ñëw tas libéraison yi ah, xanaa ñoom abo ay wusu 100 francs la ñu jënd. waaw kii daa eh, non da nga koy ber à part koy compter nga ber ko à léegi maa ni dagg direct bi ba ci kanam dañ ma ne boo directé tuuti rek nga koy fay tuuti liñ ma tere daa ba ba pare nee nañ ma ndogu suñuy ndogooti bu ma ko laaj. dégg nga kii daa war ah kaso laa gisee xanaa di ngeen ma ñamal rek ma live tuuti rek si ndogu bi ndax tey ndogu bi ginaar la de tey dressage bu tey dressage bu doy waar lañ def ay ginaar. ah xanaa ma woo leen rek ne xaaral ma woo waa cybercriminel rek wax leen tey pour ñu may ma nii rek. xaaral waa cybercriminel laay woo. allo. waa na ngeen def yeneen ci jaam man maa fi jóge léegi. waa man ngeen wax ràpp ràpp tëj. waa dañu ñun dañuy ndogu dañuy dañuy ndogu ci kanam de ca ay ginaar la dama ko bëggoon a daal di direct tuuti rek. ah direct tuuti rek. waaye bu ma wane lu bale naa wane ginaar yi noonu rek kon jii waruma ko wane ak yooyu waa kon baax na jërëjëf ba tey rek si ràpp ràpp tëj bi laa toogee <laughs> ràpp ilaaha illallaah fi mu ne nee nañ ma aéroport suba boo demee sax bul mu ne nee suba bu ma demee aéroport sax bu ma direct kaa bi lii la ma suba bu ma demee aéroport sax waruma direct maaleykum salaam ça va noo yaa ngi ci jàmm Kumba ngi nii Kumba jax gis nga fanta boobu gazon yi muy jaay bu rose bi boo ko jëndee si day gën a rafet ba pare lii daa ndul Kumba noo def non baax fii baax na ah bu fi mu ne mbir mi wóoratul ba pare nee ma cinq voitures yi ngeen koy bind par nànk-nànk bu leen ko bindati lu bari ba pare nee nañ ma kawa ba pare nee nañ dee dugal ay kër rek ba pare nee nañ cinq voitures lañ koy bind labialement par benn nee na bu leen ko bindu mu bari yaa ngi dégg nee nañ su may direct ma réglé nee nañ pas moom moom moom bu débordé non débordé yee moo débordé la ilaha illallah foofu de boo fa demee xam la lan lañ lay tegal dugg nga ci bureau bi yow kii yi nu mu tuddati écran e plat yi fii la ba fee teg ay offert ñu teg ay offert bu la nee lii yaa ko wax nga bañ nag dañuy bës rek bi na dang rek ma ma am na benn moo buñ ma laaj ma ne waxuma ko rek ñu teg ko offert bi na dang ma ne maa ko wax maa ko wax de maa ko wax samay waxa waaye démb ki toogoon du maam Ndiaye. li Sali waxoon ne cybercriminal boo fa demee loo réew réew réew réew boo ñëwee sa réew ne danga koy ngëpp. loo nëpp nëpp nëpp boo ñëwee say réew yow moom soo dem si benn kër xanaa bu la fa dugg xoolal écran bu toll nii fii ak fii la pare ñu tegal la ay uffeur ba pare xoolal uffeur yi naan ni xoolal da dugg sa bi ma tegee sama tànk uffeur yi da doon ma ne waaw bu ma tegaatee sama tànk rek uffeur ne dang ah. xale yi ma do ma doree leen seen langage ku ne damaa réew rek te ne damaa vulgaire rek dangaa toogul bureau commissaire loo réew réew réew loo sañ sañ sañ sañ loo nëb nëb nëb nëb ah dof nday wayoon na ko de dof nday wayoon na ko xam nga la ku waxul ku dégluwul waxu nday dégluwoo waxu baay li nga war waxu commissaire <laughs> wëlal ma ko yow mooy dof nday bi muy way naan ngooñ bu mag bi maa ko lekk euh, laatir mbay loon bi maa ko lekk euh, nag yi maa dagg béjjën bi waaye ku dégluwul waxu ndey dégluwoo waxu baay di nga déglu waxu commissaire la ilaha illallah ba pare sama mbokk bu ma ma ku ma woo ma coupé la ku ma xam nga woo ma ma la commissaire woote rek ma déglu ko barki Seydi wee ma eh, dof nday mayee leen ma ko ay kër dof nday yaa mën a way nga ne ku dégluwul waxu nday dégluwul waxu baay dégluwoo waxu maam di nga déglu waxu commissaire commissaire da buy wax tekk ngay def tekk comme internet bi nii nit dugg rek ngeen ni sëlëm fët sëlëm di wax jé tekk ngay def tey laa mës gis nit di wax ma ko man croisé xam nga kañ laa ko gëjoon def école 1 école maam Yéli Badiane école maam Yéli laa gëj a croiser bara man musuma croiser la nit foofu da nga fay dugg ne salaamaak dina croiser bara nga def nii nii de laa toogee nii commissaire diwaan ndeysaan ma mel ni na xolal ma may ni na xolal ku ray nit commissaire bi ne lii yaa ko def ah Sénégal di la seetaan ma ne nii rek ma ne nii rek comme tey nga wax naan ko commissaire damaa bëgg nga may ma gis nga lii ñu wax amu fa de nii rek nii rek moo fa am bandi bandi la góor duul géej kën sa kii fii la kenn du fa jóge di ndam amul kenn du fa jóge di ndam ah pelent yi ñaar la woon de man dong maa dem. waaw <laughs> suba lañ ko suba. vite fait. yee.